jërëjëf maa ngi sant euh, journaliste yi fi ñëw yépp euh, pour ne dañ muy waxtaan ak man ou dañ may poser ay question ci li nga xam ne moo xew ci sunu réew te mu nekk loo xam ne ñun ñëpp metti nañu metti nañu metti nañu man particulièrement li tax mu gën ma metti parce que dama dund loolu ci ay réew yu ma yore woon dund loolu ci réew yoo xam ne dañu duggoon ci yëfu politique ba ay safaan indi leen ci ma gis xiiroo ba ngaayoo ba fa amoon ma gis ay mbokk yu dëkk dëkk yu yaay yàgg politique yóbbu leen ci loolu te li ko indi yëpp li ko indi woon yëpp mooy mbirum politique ñu koy seefantal ba mu indi lu gën a rëy ci seen réew ma gis ne nag fan yi yëpp weer at yi yëpp nee naa mun naa ne sax euh, temps yi yëpp ñu nekk affaire politique nekk loo xam ne mu ngi ci yoon boo xam ne naru la nekk yoon boo xam ne ñu neex ñun ñëpp moo tax nag bi loolu amee aussi ma ci doon yëkkati sama kàddu am naa abitude di bind man dama préféré toujours di bind sama doom yi ma doon laaj sax lu tax papa ngay man damay bind pour dater parce que man wax mun nañ ko interpréter mun nañ ko kii mais sama bind bind la mais comme ni ñu ko waxee loolu yëpp nekk lu ñu metti ma xool loolu nekkoon responsable ci yooyu dem ci dëkk yooyu xool na mu demoon na mu tëddee woon ak la ca amoon moo taxoon ma ne ma sama kàddu wax lii nag maa ngi ñaan yàlla mu yam fi te maa ngi ñaan aussi kilifa yi diine yi kilifa aada yi ak kilifa bu mu nekk kilifa politique yi sax ñi ma nekkal ci kuje politique yi ñu ñëpp ñu taxaw tuuti ñu xool li ñu wër xool àdduna bi nu muy doxee loolu am na solo àdduna bi nu muy doxee ku nekk xam na ne géopolitique tey am na ay xeex yu am ci bitim réew mu ngi dal suñu kaw indirectement prix yi du yokk gis ngeen fi mu nekk li ñuy wax avec guerre Ukraine bi booy jógee ci kaw di ñëw Europe wala kon nga jaar ci détroit bi mu gën a gaaw yaa ngi wàcc ba ci suufu Afrique yéegaat loolu lan la xaalis bu ñu tegaat ci kaw prix yi muy wax inflation donc ñan ñoo ciy gën a sonn mooy ñi amul dara ñoo ci gën a sonn wala ñi néew doole ñoo ciy gën a son donc loolu yëpp nag boo gisee war nañu taxaw ñu xoolaat suñu bopp moo tax affaire kii bi affaire jaloog euh, bi ma ànd ci parce que loo gis rek aussi ci waxtaan lay mujj xeex guerre yu mag yi fi amoon yëpp dañu mujj taxaw kii président Abdou Diouf def na fi dialogue président lay Wade nangu na mais ñun mais mënuñu gën ñëpp léegi nag ku ci nekk nag yaa xam sa responsabilité bopp man dama wax li nga xam ne mooy li ma xalaat ma voilà gis naa ne am na ñu ci d'accord loolu wax lii lii loolu amul amul solo parce que ku ci nekk mën nga wax sa xalaat mën nga wax sa sa li am solo mooy nga am sa responsabilité bopp nga assumer ko aussi te man bu ma xasee ba wax yooyu damay assumer li ma wax aussi mun ko démontrer aussi lu tax ma wax ko ndax sama li ma gis gisoon ci biti dellusiwaat ci suma réew gis ko muy raam ma ne lii mun na indi lii moo tax ma wax loolu ils ont été encadrés ils ont été encadrés voilà c'est ce que je dis c'est-à-dire aujourd'hui euh, je hommage aussi bien aux hommes politiques qu'aux forces de sécurité et de défense Pourquoi Parce que simplement, ils ont accepté que les gens fassent ce qu'ils font, mais ils ont encadré aussi le mouvement. Et ils ont aussi eu la lucidité euh, aussi de questionner l'avenir récent. Ce qui s'est passé il y a un an avec les morts, avec tout ce que vous voulez, avec tous euh, les désagréments causés aux populations, euh, aussi bien en coût, de, coût économique qu'en coût humain. ils ont tout pris en charge et certainement c'est ce qui les a poussés à avoir un tel comportement. Donc je voudrais donc euh, à vous tous euh, également le, les féliciter pour, euh, pour cela.